Euh, Mamadou jox man may euh, saytu di coordonner lépp li nga xam ne liggéey la ci wàllu ndox lu jëm ci waajtaayu màggal Touba ci of office des forages ruraux ñu koy wax OFOR waaw jërëjëf ci laaj boobu mais di nga ma may rek ma fàttali fatali bi moy euh, biñu ñu ci màggalu daw ci mois de décembre euh, ministre Mansour Faye dafa joxé woon ndigal pour ñu and ak euh, autorité administrative yi gouverneur préfet ak sous-préfet and également ak comité d'organisation bi ak Maawu Rahmati nga xamné ñu ñoo bok liggéey wi ak mairie Touba bolé won nañ également sen natangu journalistes yi ak service yi nga en tout cas euh, le yor service d'hygiène ak direction assainissement euh, ñu gouvernance ci mois d'avril le 13 Nous euh, boobu ñu càmbar ci li nga ne la bi set lan mo ci euh, li nga xamne mën nañ ko capitaliser mën nañ ko wax ne li lu bax la nañ ko ñongal li nga xamne ay jafé jafé la won biñu waxtane euh ay la yewon gis nañ ne euh, état bi à travers fort ministère hydraulique daf nañ ay jéego yu ré ré ré ci at yi passé ci walum ni ñu saytoon xou Touba ci euh, jamono magal rafet lu ko mais gis nañ ci également euh, beneen jàngat jàngat boobu mooy dañu war a euh, fexe ba Touba ñu bu ñu bañ ko méngale ak mbirum ndoxu Touba màggal bi xam ngeen ne lu mot ñaar bi ci ñetti million doomu aadama dañuy ñëw pour ziare si ñi dañuy ziare dem ñi dañuy ziare toog ak seen ay activités te ñu gis ci également que. Euh, li ci ëpp ci ñi ñëw Touba ci quartier zone centre bi lañu la ñu nekk lu mel ni Daaru Xuddoos lu mel ni euh, Kër Ñang lu mel ni euh, Xayra euh, lu mel ni benn partie ci ci Daaru Marnaan moo taxoon ñu d'accord ak comité d'organisation bi nga xam ne ñoom lañ dénk màggal gi ñu d'accord ak ñoom ni dinañu fexe ba gën a ndox mi di ci euh, donc euh, ba ñu li extension de réseau li ñuy wax densification lu ñuy wax lëkkale pour que ndox mi en tout cas ci ci ci centre bi loolu def nañ ci ay yu am également ñu yokk li nga xam ne ñu ngi ko doon joxe daaw ci ndox eh, dañuy faral di wax ne màggal gi amul tànk ginnaaw tànk kanam la am moo tax at bu ci nekk dañuy bëgg a yokk li nga xam ne moom lañuy doon joxe ci ndox daaw boo ko seetloo juróom-ñeent fukk junni boo ko doon xayma ci litre juróom-ñeent fukki junni junni juróom junni million euh, euh, euh, litre ndox lañ doon génnee ci forage naam forage bi nga xam ne euh, moo nekk ci hôpital yàqu na mais terewul augmenté nañu yokk nañu capacité bi nga xam ne moom lañ doon produire daaw teg nañ ci junni ak téeméer ak lu teg junni ak téeméer boobu ak ak lu teg boobu fi mu jóge mooy dafa am ñaari piézomètre ay forage yoo xam ne seen dayoo naam euh, matul ni dayo forage yu mag yi nekk Touba mais biñ leen euh, defaree di di di di ñuy joxe ndox joxe nañu lu dem ci ñaari junni ak euh, lu tegal ci ay mètre cube yoo xam ne dafay dellu ci ci ndox mi bu fekkoon ne tey dem nga ci zone yooyu lu mel ni xeera lu mel ni Guédé euh, nga xam ne at yi passé doon nañu am jafe-jafe tey jafe-jafe yooyu mun nañu wax ne saafarawu na leneen liñ ci teg mooy am na lu ñu dab li ñu dab mooy forage hôpital bi dafa yàqu mu nekkoon jafe-jafe bu rëy a rëy euh, autorité sanitaire yi autorité administrative yi hôpital Matlaboul Fawzeyni euh, forage bi yàqu mais euh, ñu buñ ko càmbaree seet ne am na forage bu nekk ci 1 kilomètre 600 ci Rahmatul ah ci université ñu jëlee foofu benn tuyau ci bopp forage bi muy dem ci château d'eau bu hôpital bi euh, fan est passé ministre bi directeur général OFOR ministre également directeur de cabinet ministre bi directeur euh, directeur hôpital bi ni j'afé j'afé yi fi nekk ni satisfaction la mesure jël nañ ko mesure ñu Euh, am na lu ñuy lu tubaab di wax surpression mooy nga yokk doole ndox mi euh, boo demee ci fu mel ni route de Njurul mbala nga dem ci fu mel ni Tindodi yi am nañu fa ay bassin yoo xam ne bassin bu ci nekk dina def juróom-benn junni mètre cube ci ndox loolu noonu bu màggal bi desee ñaari fan ci la ñuy taal pomp yooyu mu mel ni dinañu dolliwaat ci production bi mu wax sànq juróom-ñeent fukk euh, junni ak benn junni ak lu tegal ci mètre cube dinañ ci mètre cube donc loolu également lu ama am solo la am solo également mooy am nañu ci suñu forage groupe defar position boo xam ne dinañu euh, permettre ñu mën leen a taal ñu xam ne forage du am benn yoon mu taxaw euh, ñu teg ci également loolu suñu ay mbokk ñoo ñu ciy jàppale ñu mel ni daayira euh, plombier Touba yi euh, su ma waxee ñun ñun Ofor la ak maw Rahmati nga xam ne ñu ngi ànd di di liggéey liggéey boobu am na solo boo seetloo. Euh, damay faral di wax ni joxe ndox solo mais joxe ndox bu sell solo ci ak euh, daayira plombier Touba yi euh, lu day ni tey ci jamono bi may wax ak yow ñaar ñaar ak ñaar ci ay fuite ay bënn bënn mbala foo xam ne bi pression bi dafa yokku ndox euh, enregistré nañ ko ci euh, réseau bi defar nañ ko it ci jàppandi euh, teewaayu Maawu Rahmati OFOR ak GIE plombier yi mais yemuñu ci loolu def nañu système boo xam ne ndox mi dañ koy sellal loolu suñu natango yi nga xam ne ñooñu ciy gën a jàppale mooy SDE ñëw nañ fi li nga xam ne moom la ñuy liggéey yépp ci ndox bi ñuy joxe dinañ dañ def ci machine forage bu nekk machine boo xam ne mooy def ay ferñeent ci ndox mi ba ndox mi du am doomu jàngoro euh, ci buy lore ci ci liggéey bi euh, loolu bokk na ci li nga xam ne mën naa wax ne euh, yenn pàcc la ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ñaari weer ci ginnaaw ba ba tey ànd ci ak Maou Rahmati naturellement ànd ci ak également mairie mairie Touba ci ndimbalu effectivement autorité administrative le lu sous préfet lu préfet ak euh, ak gouverneur bo setlo suñu kilifa yi aussi ñu ngi saytu li nga xam mom lañuy def directeur général def na fi ay mission pour lancer travaux yi pour ñëw set fu mu and ci siwaat ak directeur de cabinet ministre bi ñu ñëw setat nemmeeku fu ñu euh, visite bu ci dinañu waxtaan ak comité d'organisation bi dinañu waxtaan ak Mawou Rahmati dinañu waxtaan ak également porte-parole Khalife général des Mourides pour wax ko suñu tolluwaay ak dayo bi nga xamné ñu ngi koy liggéey ci ci nox mi donc lool daal moy li nga xamné dafa gum nañ ko bobu ak légui en tout cas li tubaab di wax point fort loolu la ci la ci génné ci li nga xam ne moo doon liggéeyu euh, waajtaayu waajtaayu màggal gi waaw euh loolu motax ba ñu euh, tàmbali liggéey bi ci euh, boobook léegi war na mat euh, juróom-ñetti weer xam nañ ne Touba déjà dëkk buy màgg lañ ni muy màggee jéggi na dayo benn ñaareel bi mooy jamono tàngaay li nit ñi di soxla ci ndox dina bëri ñetteel bi également mooy nga xaaj population Sénégal ñett mbala ñeenti xaaj ñëpp daje fi loolu li muy laaj ci ndox problème la mais matuwaay yi ñu jël am nañ yaakaar bu baax ne euh, nit ñi dinañu am ndox ni nga xam en tout cas noonu lañ ko bëggee ak ni nga xam ne noonu ko kilifa comité d'organisation maintenant euh, comme niñ ko waxee rek bu ñëpp soxlaandoo di euh, fenn mate mën na ñak fenn fi actuellement ni digënté demb ak tay ñu ngi eh, jot ay nit ñu ñuy wax amuñu ndox mbala sen pression dafa euh ci madiana ci eh, sam donc yoyu également ñu rek yoni nañ ay équipe ñu nemmeeku lolu mais li nga xamné ay camion citerne ñu ngi fi ñëw na yóbbu nañ leen ci zone boobu ñu may nit ñi ndox ñu nga xam ne ñu ngi approvisionné wu ñi di duy pour en tout cas denc denc ndox mi mais euh, am nañ yaakaar bu baax ni euh, dañuy dem ci màggal bi avec beaucoup de sérénité et que euh, dalal xelu nit ñi également que en tout cas euh, état bi jël na disposition yépp pour nit ñi mën a jàll ci màggal bi te du am en tout cas jafé jafé yu mën a tax ñuy wax jafé jafe léeg-léeg nag di nga dégg ci radio bi ñu né pénurie fi amna pénurie fallait amna amna pénurie mais bon euh, pénurie ni ñu koy téké ci tubaab moy lo xamné amul amul lolu euh, mën naa wax ne tay ni lolu amul ci ci Touba bo seetloo nit ñi dañuy euh, faral di xool mbala gëstu mbala fësal fi nga xamné amna jafé jafé tey bo demee Bagdad euh, daanaka mën naa wax ni ñun ak suñu équipe yi fa lañu fanan demb Bagdad Guédé dañ doon am ay jafé jafé mais euh ouvrage yooyu mu wax né def nañ ko permettre na ñu fofu fo xamné xam da doon manké ndox du am pression bala mu manké ndox amna amna ndox ñu def ko également ci gox yu yu bari lu melni ni Buqatul Mubarak par exemple bo setlo at yi passé ci ginnaw liñ doon jot ci ñi laaj

te ñu koy jël aussi ñu koy déggoo ak euh, suñu partenaires yi nekk fi mairie bi ak Maawu Rahmati mais ñu ngi koy déggoo également ak autorités euh, religieuses yi parce que euh, bu ñu ko waxee buñ ko waxul comité d'organisation bi ñoom ñooy càmbar seet ne nangam ak nangam ak nangam ak nangam la ñu soxla loolu également pour ñu mun ko def dañuy def li ñuy wax plan d'action seet fii metti ci réseau bi set yan poñ lañu wara ci yan poñ lañu wara war liggéey ci réseau bi ba mun a ñëw euh, régler li nga xam ne comité d'organisation bi loolu la loolu la laaj en tout cas ñun ci loolu la ñuy liggéey ak suñu partenaire yi et mun nañu dalal xelu pèlerin yi pour wax leen ni euh, li disposition yi nga xam ne d'accord nañ ko yëpp jël nañu disposition yooyu et que euh, am nañu yaakaar bu baax ne Euh, dinañu traversé màggal bi te problème yu bari du am li koy waral ñaari mbir la ndox moo ëpp ci doomu aadama juróom-ñaar fukk ak benn ci cër doomu aadama ndox la ndox ñi jàng li mu ñëw ci arxuraan bëri na defe naa mot na juróom benn fukk ak nangam yoon mu ñëw ci arxuraan pour wone importance ndox Euh, ñaareel bi mooy boo jëlee suuf si également ndox moo ëpp euh, jéeri bi euh, loolu yëpp ay misaal yu wone importance bi nga xam ne ndox am na ko te bu ñuy ñëw màggal dëgg la dañuy ñëw pour ziar dañuy ñëw pour def activité boo xam ne diine la te diine ndox ci njëkk lu ci ëpp également ci jamono yi ñu tollu màggal bi ñu ngi koy def ci jamono tàngaay tàngaay boobu également euh, loolu yëpp ay soxla la yoo xam ne ndox la donc lii doomu aadama mën a muñ ci ci yeneen fànn yi mënu ko muñ ci ndox loolu également euh, problème la beneen fànn bi mooy constaté nañ ko démb Bagdad bi ñu demee foofu malheureusement presse bi ñëwuloon mais di nga gis nit ku la ne sama kër amul ndox ñu saytu ko ak moom càmbar ko càmbar ko càmbar ko ba moom mooy mujj ne mankat kat waruma am ndox parce que ni ma def li ma def ba indi robinet bi ci kër gi lii warul mën a indi ndox donc constaté nañ également que lu ci bëri liggéey yu mel noonu la liggéey yoo xam ne jaarul yoon li yooyu yoo xam ne jaarul ci ay normes mais depuis que Maou Rahmati nekk fii lu ci bëri ñu ngi koy jooyanti nga koy joyanti bu am nañ ci en tout cas yak euh, satisfaction ci yenn poñ yi mais euh, mënuma wax nangam la mais lu bëree bëree bëri ci ñi nga xam dañuy ñak ndox euh, ci liggéey ba la ci tiyo bi ñu jokk tiyo bi ñu xëccee mbala anam yiñ ko defee yooyu également problème la ci ci réseau ci réseau ci réseau Touba bi ku bëgg a xëcc ndox da ngay def demande euh, dem ci chef de quartier bi mu defal le kayit buy wane ne yow fii nga dëkk parce que ku ku bëgg ndox il faut ñu identifier sa kër xam ne fii nga dëkk kii mooy borom kër gi ak ak yu mel noonu boo paree loolu nga dem ci Maawu Rahmati euh, nga fay droit de branchement ñu defal la autorisation boole la ak plombier boo xam ne il est agréé plombier boo xam ne nemmeeku nañ xarañteem ci liggéey bi. bu fekkee ne yow da nga am plombier aussi mën nga ko indi ñu seet ba xam ndax plombier boobu agréé nañ ko wala agréé wuñ ko bu ñu ko agréé nga dem defar ñu xam ne diw mii am na am na am na robinet importance yi loolu mooy branchement bi ngay def dina jaar ci yoon benn ñaareel bi également dina mën a permettre maawu rahmati ñu ñu xool euh, fichier ñi nga xam ne ñoom ñoo xëcc ndox ci seen ci seen kër c'est normal foofu noonu ña ñetti fan ci ginnaaw ñaar bi ñetti fan ci ginnaaw dañu fa am problème benn camion moo mbëkk poto Senelec pour ñu defar ko Senelec dafa couper courant enfin mbëkk poto boobu moo indi coupure courant bi te guddi la euh, à minuit euh, incident boobu tax na ba ñeenti forage toog lu mat genn wàllu bés dawuñu muy université muy rahmatul ahad muy eh, FKB forage njuga kb bi moy forage yu bi forage yooyu dañuy am influence ci brûle bobu nga wax suñu toogee lu mot mm, genn bëss euh amuñu ndox réseau bi fay vide biñu bi courant bi ñëwé ñu donc progressivement la nuit, la nuit, la dabe mais en fait jël nañ mesure jël nañ mesure yooyu parce que wax naa sànq que euh, forage yi am na ay groupe électrogène yoo xam ne bu euh, courant bi coupé dañ koy taal mais ñaari affaire moo si nekk wax naa la déjà guddi la min wi min wi la woon euh, min wi la woon groupe yi en ce moment approvisionné guñu leen woon en carburant parce que ñetti fan ci ci ci ginnaaw la groupe yi fonctionné rek actuellement en temps plein yooyu la ñu defoon

nga eh, eh, eh, am dal am xel bu tey que ndox dina am ndox du manqué mënuñu wax nag ni à cent pour cent ni nit ñi doon amee ndox dinañ ko duñ duñ ko amee noonu. am na benn kilifa bu ma woo démb na ma këram dafa manqué ndox waaw waaw kooku de xaaral ñu ñëw saytu ko ci suuf nu muy ci suuf kon kon ci suuf amul ndox mu ne ma ci suuf am na ndox waaye ci kaw amul ndox. ma ko pourtant ñun day ñun ñi dëkk Dakar euh, at bi yëpp presque guddi ba guddi lañuy am ndox ci kaw mais duñu am ndox toute la journée ci suuf ça veut dire que am na ñu bëri ñoo xam ne dañu naan amuñu ndox fekk na am nañu ndox ci suuf mais dañuy bëgg ndox bi yéeg loolu bu fekkee ne nit bëgg na ko dafay def ay dispositions complémentaires mu yéegal ko am na leneen loo xam ne aussi xam nga lu ñëpp bokk ku ci nekk di tibbee nu la neex te amul nattukaay aussi loolu aussi problème la Lolo hein? loolu également bokk na ci li nga xam ne euh, euh, euh, dina indi jafe-jafe mais loolu yëpp ku xam dayu Touba gis dayu Touba gis Touba ni muy màggee gis importance su ville bi ñu mën a xam ne loolu du wéy mënul wéy te warul wéy loolu moo état bi jël ay solution yo xam ne pour régler définitivement problème boobu régler ko ci ñaari fan fànn bu njëkk bi mooy étudier réseau bi set exactement lu nek fu mu jaar ak nan la wara def ou bien en tout cas nu mu mel mais li ci ëpp solo moy gëstu nañu ba set ay bërëb yo xamné ndox mu neex la am ndox mu sell defuma publicité waaye boo seetloo ndox mi aynu ndoxu aynu bi ñuy jaay ndox boobu ndox bu neex la nit ñi taamu nañ ko donc foofu lañu ñu nar a jëlee ay ay ay teen yoo xam ne ay teen yu rëy la indi ndox mi fi ci Touba ak ay canalisation ak li war ci ci ci ci loolu parce que aussi Touba ni muy développé il faudrait également que euh, infrastructure yi ñu yoké ko nonu mu développer noonu donc pour dire que effectivement magal bi bu ñëwé dinañ ci def ay moyens dinañ ci def ay ay saafara ci yenn mbir yi euh, mais état bi mu ngi mu ngi mu ngi liggéey liggéey bu avancé la d'ailleurs ci li mu nga xam ne wax naa ko nii xam nga bu fekkoon ne problème du du ñu yenn jafe-jafe yi duñu mobiliser ay camions sidar duñu mobiliser ay bâche à eau mais loolu dañ koy indi également pour zone yi nga xam ne ponctuellement dinañ fa am ay jafe-jafe camions yi dem may nit ñi ndox pour dire que état bi jël na disposition yëpp pour en tout cas ñu ñu régler ñu régler problème camions yi. Euh, OFOR moo ko indi ci ndigalu ministre de l'hydraulique kenn du ci joxe dërëm da ngay ñëw nga laaj dama bëgg ndox ñu bind sa tur su camion yi ñëwee ñu boole la camion yi mu yóbbul la sa kër jox la li nga bëgg ci ndox kenn du ci laaj nit essence kenn du ci laaj nit koppar kenn du ci laaj nit dara c'est gratuit ñu ngi également euh, wax nit ñi que nañu xam ne.

yeneen service yi nga xam ne ñun ñoo bokk bokk liggéey bi parce que lu ci bëri euh, dañuy lëkkaloo di di di ànd di euh, di liggéey mais jéggalu également ñi nga xam ne bi ñuy liggéey di def entretien yi xawoon na am ay perturbation ci ci seen kër yi ci wàllu wàllu ndox mi parce que bu ñuy technique moo demee noonu sooy liggéey boo liggéeyee ba pare il faut nga essayer ko et cetera donc loolu dinañ indi ay perturbation mais yooyu yëpp pour gën a euh, en tout cas defar euh, defar la et que di wax nit ñi nañu dalal seen seen xel ci ndox mi ku am problème mu ndox ñaanuñu nit ñi am problème mais ku ci am problème mu ndox euh, na nga woote hydraulique mbala nga woote sous préfecture ndaam ñu jël ko en charge indi la camion wala ñu yónni fa ay techniciens ñu xool exactement lan la buñ ko mënee saafara ñu saafara ko su fekkee ni luñ mënul saafara la ñu yónnee la camion mbala ñu jox la bâche à à eau mais dañuy faral di gis ñu ci bari bu fekkee ne loolu mooy li may wax solution bi gën a yomb bu ñu amee problème ndox rek dem ci presse bi wax dëkk sàngam amul amul amul ndox pénurie la et cetera et cetera alors que ay service ñi ngi fi administration baa ngi fi maaw rahmati mi ngi fi donc il suffit que nga dem foofu mbala nga woote foofu ñu jël en charge ce ce ce problème donc lolu aussi euh, ñu ngi len ci en tout cas euh, wo yéen presse bi ngeen dimbali ñu ci def ci ay djégo def ci ay message également euh, di len gërëm aussi yéen presse bi parce que gis nañ né biñu commencé liggéey bék légui tout au long de ce processus yéen a ngi ñuy gunge yéen a ñuy en tout cas yéen a ngi fësal li nga xamné euh, population yi ñu ngi koy ñu ngi koy wax usagers yi ñu ngi koy wax également ci walu walu ndox